asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tukki nemmeeku bu njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye doon amal fa li nga xam ne moom mooy ca France dañ ciy jukkiwaat tey ji ak utilikaay bii di Sud Quotidien ndaxte suñu natango yi seq nañu waxtaan ak professeur Jean Charles Biagui nekk ab jàngalekat ci wàllu science politique ca faculté de droit bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ak tamit Bakary Domingo Mandé nekk ab taskatu xibaar formateur réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, doxalee professeur Jean Charles Biagui euh, daal di gis ne ci ndaje boobu nga xam ne kon nemmeeku nañu ne ñaari njiitu réew yi ñoo ngi ko doon amal dafa mel ni ne lañ daan tàmm di gis ci diggante njiitu réewum France yeeg njiitu réewum Sénégal loolu moom gisuñu ko ak ki nga xam ne de moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar fay loolu di firndeel ne rupture moom am na euh, ci lépp loo xam ne kon Diomaye ma ngi koy amal ndaxte saa soo gisoon ñii nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ay njiitu réew yu mel ni Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak tamit Macky dañ daan faral di lëngoo ak ñi nga xam ne kon ñoom ñooy njiitu réewum France yi wante loolu moom du lii nga xam ne moom la Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di fay wone Bakary Domingo Mané dafa mel ni tamit li ni mel daal dina koy seetlu ndaxte moom daal di ne xamle ni kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom xam na ne ba muy dem fële nga xam ne moom mooy ca France dem fa rek ngir représenter nag réewum Sénégal wante Afrique bi yëpp loolu kon dee firndeel ne moom am na lu nekkoon ci ay boppam te it xalaat bu leer nañ la demee foofu nga xam ne kon moom mooy ca France mu daal di gis ne fu mu nekk nii la ñuy jàppee suñu bopp ak waa France di gis ne ñoom ñoo ñu coloniser ñoom ñoo fi teg tànk ci ay entreprise yu bëri yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk loolu taxul ba ki nga xam ne nag moom mooy président bu bees bi nekk it ndaw moom ba mu demee mu mel ni taalibe buy tarbiyu sëriñam ci discours ga mu yëkkati te na mu koy fësalee ci ay taxawaayam Bakary Domingo Mané daal di gis ne jomaay dafa wane ne coppeeku dafa war a am ci lépp loo xam ne moom moo war a nekk suñu diggante ak ñi nga xam ñooy waa France ñu desandi ak jolikaay bi di Sud Quotidien ndaxte mag ñuy jottali ay kaddu Jacqueline Fatima Bokoum nekk directrice de communication euh, ca APIX moom moo nekkoon ganub émission bi di objection euh, fii ci biir rajo Sud FM moom muy daal di xamle ni ginnaaw xew-xew yu métti yi ñu fi nemmeeku woon laata nag ñuy amal élection présidentielle ci 24 mars euh, dafa mel ni nag ne xew-xew yooyu léegi mu ngi suñu ginnaaw ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñooy investisseurs yi maanaam ñuy dugal seen koppar fii ci même réew loolu moom tàmbaliwaat na bu baax a baax mu koy rafetlu moom xam na ci ne ñii nga xam ne kon ñoom ñooy investisseurs yi ñu ngi ñëwaat bu baax a baax euh, fii ci biir réew mi moom moomu di Jacqueline Fatima Bokoum ñuy fàttali ne taskatu la jaar na fële nga xam ne moom mooy ca fii ci biir rajo Sud FM ak tamit groupe Setcom moom moo fi taxawal tamit école bii di Jacadémie nekk ab école de leadership et de prise de parole ba ko bàyyi Omar Gueye laajee nag ci jafe-jafe yu tar yi nga xam ne léegi ëtub tasub xibaar yi ñoo koy euh, jànkonteel moom la mu ca gis moom mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ëtub tasub xibaar yi faw nag ñu daal soppi doxalee na fexe nag ba gën di amal ay émission yoo xam ne daal ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo am ci li ko tàmbalee fukki at ak juróom di ba ñi am ñeen fukki at ci biir colikaay bi di la mandat suñu naataango yi tamit ñoo nga ñuy jottali ay kàddu Jacqueline Fatima Bokoum mi nga xam ne kon am na ay solution yoo xam ne daal dina koy fësal jëmale ko nag ci ëtub tasub xibaar yi su fekkente ne daal bëgg nañu nag jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkoon jànkonteel ñu war cee mën a indi ay saafara tey ci altine jii la ñu fas yéene nag tàmbalee di dëggal wàññi gi nga xam ne nag nguurub Sénégal wàññi na ko yenn ci ay njëgu dund yu ñuy faral di jëfandikoo ñu ràññee ci nag bu ci mel ni mburu kon li ko dalee tey jii kilo bi dinañu ko jaayee fanweeri dërëm wante coolikaay bi di 24 heures moom moo gis ne loolu de suñu maytuwulee du am ndaxte ñii nga xam ne nag ñoom ñooy defar farine bi ñoom daal dinañuy xamle ne wàññeeku bi ñuy def ci saaku farine bi dafa jéggi dayoo ëllëg julikaay bi di la mandat sax di ñu xamal ne ñooñu nga xam ne kon ñoom ñooy defar farine daal dinañuy xamle ne ñoom dañuy dàkkal seen liggéey ndaxte ñoom fas yéenewuñu nag di jaay di ci perte julikaay bi di l'info ne ñii di meunier maanaam ñiy defar farine dafa mel ni nag ne dañoo tëkku nguur gi ndaxte ñoom daal dinañuy xamle ne seen liggéey bi dinañu ko dakkal ndax la ñu wàññi ci njëgu farine bi dafa bëri te loolu moom day tax ba lépp loo xam ne dafa jublu ci seen wàllu liggéey dafa nar a sooxee kañ la jëwriñ bu njëkk gi di Ousmane Sonko fas yéene amal nag déclaration déclaration de politique générale fële nga xam ne de moom mooy ci assemblée nationale laajte boobu ci li kay bii di le quotidien moom moo koy laajte ndaxte Ousmane Sonko ñetti weer la ñu ko may ngir mu dem fële lay la ñuy tëj session parlementaire bi Adji Mergane Kanouté nekk vice-présidente du nga xam ne de moom mooy Sonko ci nii baa ca ne mu daal di jaar foofu nga xam ne moom mooy ca assemblée nationale ndaxte loolu lu war képp koo xam ne dañ la tabb yees nga nekk jëriñ gu njëkk ci biir colikaay bii di yor yor bi ay kàddu soxna Aminata Touré moom moo fa fës moom mi nekkoon ganub émission bii di grand jury daal dinay ñaawlu yenn yoo xam ne ñu ko fi doon nemmeeku bi Macky Sall nekkee njiitu réew loolu sax moom moo tax moom mu gis lépp lu jublu ci wàllu loi d'amnistie bi dañ ko war a jël teg ko ne ndax faw ñu daal di xool ba xam ñañ ñoo indi fitna bi ñañ ñoo tax ba ñu bëri daal di ñàkk seen bakkan am ay gaañu gaañu ak ñeneen ñoo xam ne dañu leen tëj ci biir kaso kii nga xam ne moom mooy Amadou Ba autolikaay bi di bés bi le jour moo ñuy xamal ne moom fu mu nekk ni nag dafa fas yéene jël ay responsabilité am Amadou Ba daal dina koy fësal sax ci ab bataaxal goo xam ne autolikaay yi jot nañ cee ñëw te Amadou Ba lu weesu nag waa APR dina jàkkaarloo tamit ak waa PASTEF ak ñeneen ci ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo nekkoon ay candidat euh, ci élection yi nga xam ne moom la ñu jógee mbas bi di covid 19 suñu maytuwulee dina dellu si waat nag ndaxte autolikaay bii di las ma ñuy xamal ne ujaaj ya nekkoon ca màkkatal mukaram ba ñu ñibbisee nag fii ci même réew daal dina ñuy nemmeeku ne ñu bëri ci ñoom nag am nañu feebar bi di covid 19 aujourd'hui kay bii di laas xamal ne médecin chef bu service contrôle sanitaire aux frontières aériennes ci aéroport international Blaise Diagne di Charles Bernard Sagna moom de moom moo daal di xamle ne bëri na ay ujaaj yoo xam ne daal ba ñu leen nemmeeku dañoo am jàngoroy covid 19 loolu yaram ngir ñuy daal di sol masque balaa ñuy dugg ci biir avion yi ëccolekaay bi di la soleil moo ñuy ba ñu daal di génnee nag pétrole fa li nga xam ne moom mooy ca Sangomar dinañ ko commencé jaay ci ndoxte lu weeru juillet Sangomar nag cargaison bu njëkk bi nga xam ne moom moo fa dal di jóge kon ci ndoxte lu weexu juillet lañ ko fas yéene tàmbalee di jaay at bu jot dina am ci lu tolloog 11,7 millions ci wàllu baril de pétrole brut boo xam ne kon dina fi génn wante ñu gis ne ci wàllu mbànd pétrole yu bëri yooyu yooyu yëpp dina am loo xam ne dañ ko nar a jaay lii moo nekkoon mbokk déglukat yi li gën a fës ci biir ëculikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom ñaanal njeexte lu Mesdames et messieurs, bonjour. La première rencontre entre le président Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar On en reparle avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui se sont entretenus avec l'enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté de droit de l'Université Cheikh de Dakar, le professeur Jean-Charles Biagui et Bakary Domingo Mané, journaliste, formateur et analyste politique. Ensemble donc, ils décortiquent les enjeux qui se cachent derrière les gestes immortalisés par les images des Ainsi, retournons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que sur la forme, cette rencontre montre qu'il y a incontestablement une rupture, notamment dans la communication. Et pour cause, renseigne-t-il, lors de cette visite du président Diomaye à Paris, on n'a pas vu les images de présidents africains, notamment sénégalais, qui acceptent un paternalisme devant les télévisions du monde. Le président Diomaye s'est inscrit dans la perspective de rupture en des embrassades, accolades dans un langage avec des formules qui témoignent d'un lien colonial et un paternalisme accepté. L'enseignant-chercheur poursuit toujours en soulignant dans le journal Sud Quotidien que le fait que cette première rencontre entre les deux chefs d'État soit tenue en marge d'un forum mondial organisé à Paris par la France et l'Union africaine, cela tranche avec un passé pas très lointain puisque ce n'était pas une visite Traoré a aussi indiqué au sujet de la posture du président Diomaye lors de cette rencontre que le jeune chef d'État n'a pas perdu de vue qu'il représente plus qu'un pays, mais l'Afrique toute entière. Pour Bakary Domingo Mané, Bassirou Diomaye Faye, en se rendant à Paris, avait des idées claires dans la tête. Restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous rapporte les propos de Jacqueline Fatima Bokoum, directrice de communication à la radio Sud

recrutement. Interpellé par Bayoumar Gueye sur la situation difficile que traversent les médias dits traditionnels du fait de la menace des réseaux sociaux, Jacqueline Fatima Bokoum, elle-même ancienne journaliste qui a servi à la RTS, à Sud FM et au groupe Setcom, plaide pour des contenus plus adaptés à la nouvelle cible dont la tranche d'âge se situe entre et ans. Et également dans le journal Le Mandat, nos confrères reprennent les propos de la fondatrice de Jacadémie qui esquisse des pistes de solutions susceptibles de permettre aux médias de remonter la pente. Elle pense que les médias traditionnels doivent reséduire la cible en termes de contenu et selon elle, on y arrivera si on arrive à les intéresser programmes qui leur parlent et surtout euh, des programmes qui donnent des solutions. On a cette capacité au Sénégal d'être dans la civilisation du constat, mais très rarement dans la force de proposition. Après, les gens nous écoutent deux, trois fois et après, ils s'épuisent, conclut-elle. C'est à partir de ce lundi qu'entre en vigueur euh, la baisse des prix sur certaines denrées de première nécessité. Mais retenons avec nos confrères du journal heures que la décision du gouvernement 15 200 francs CFA pas les meuniers et ces derniers engagent le bras de fer. Ces meuniers ont décidé à compter de ce lundi un arrêt périodique et collectif de production permettant de ralentir le niveau de perte. Dans le quotidien Le Monde, nos confrères confirment ce mouvement d'humeur des meuniers qui déclare un arrêt provisoire de production. Les meuniers défient l'État, c'est le titre qui barre la une du journal L'Info. Ces meuniers, nous disent nos confrères,

journal Le Quotidien, c'est Adi Mergan Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokuyakar, qui fait savoir à Ousmane Sonko qu'il doit venir à l'Assemblée nationale car c'est un passage obligé. Dans le journal Yor c'est Aminata qui dénonce les exactions de Macky Sall. Nos confrères reprennent les propos que cette dernière a tenus lors de l'émission Grand Jury. Et pour Aminata justice doit être rendue à tous ces morts, blessés et personnes illégalement et trouve qu'on doit situer les responsabilités et c'est cela la lutte contre l'impunité. Dans le journal Besbi le jour, nos confrères nous donnent des nouvelles de l'ancien Premier ministre Amadouba qui lève un coin du voile sur son avenir politique. Amadouba a annoncé les couleurs de cette nouvelle responsabilité politique qu'il veut incarner. Toutefois, l'ancien Premier ministre devra faire face au pouvoir, à l'APR et aux autres opposants, dont ceux qui ont perdu face à Diomaye Faye. Beaucoup de pèlerins de retour de la

pétrole de Sangomar. Elle est prévue en début du mois de juillet. La première cargaison commerciale issue du champ pétrolier de Sangomar est attendue donc en début juillet. Il est prévu une production de 11,7 millions de barils de pétrole brut pour 2024, dont un volume de 4,34 millions de barils destinés au marché domestique. C'est tout à